ah ndaje bi nañu ndaje bo xamné bo fekk jigéen yi euh, les 24 quartiers sont tous représentés par le mouvement des femmes li may a wax moy politique sokoy def ay ay jigéen la politique sokoy def ay xalé la fekk nañu fi les jeunes fekk nañu fi les femmes et ce qu'elles ont porté sur Boubou Khouma ah nous nous sommes très satisfaits et nous allons rendre compte aussi je euh, ma vous wax euh, président suñu leader le président Mamadou la Sy a une délégation bi ma àndal on va rendre compte dinañ ko wax président lan la ñu fekkee buuba xumma et buuba xumma euh, porté na espoir Pikine Est Et vous êtes ñaan Mamadou Sy mu ah, mouvement

et euh, suñu président lu mu wax rek ci loolu la ñuy ànd aussi xam na loolu te yaakaar naa ne confiance bi président am ci buuba ak euh, cofeel bi président am ci buuba il va pas laisser Bouba.